ay ci salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki àdduna mbokki Sénégal mbokki ami internet Tacko TV ñu ngi ñu ngi suivre di ñu béggee ci biir la lumière di cœur tey ñu ngi ñëwaat fii nga xamante ne si mooy Louga ñëwaat fi nga xamante ne si mooy dëkku teranga bi tey ñu ñëw ci beneen anam ñu ñëw nag fekk fi sunu mbër mbër bi ñuy wax ndongo daara moom lañ fi seet si tey ñu ñëw jëm ko xool maanaam nu muy duggee ci ay ak nu muy liggéeyee parce que mbër la boo xamante ne si yàgg na wax ay mission ci biir làmb kon tey ñu ñëwaat ci biir Louga ba léegi ñuy siyaar mbokk ami internet di siyaar gars yëpp ñu ñuy suivre ci biir Tacko TV ak la lutte tey ñu ñëw seet si ndongo daara kon bu ko defee maanaam doo ñoo ñëw jibi suba ba léegi ñu ngi ci dëkk bi tey ñëw nañ ci ngoon gi ci entraînement am ñu ñëw jéem a xool ndongo daara nu mu nekkee ci biir Louga parce que ñu ngi ñëw fii nii ci montagne nord ci écurie waa montagne noor ñu ñëw seet si la ñu ngi toog ay coach am ku ci mel ne coach su Mbaye Niang ñu ngi toog ak moom ñu ngi toog ak Jantal Mara mi ngi fi ñu ngi toog ak dirigeant Modou Niang ñu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi toog ñoom tey bëgg nañ ñu yaatal ñu dugg ci biir ndongo daara ak carrière waxtaan ci ndongo daara parce que mbër la boo xamante ne si dégg nañ ay jalooreem biir Louga ci kanam tuuti dinañ ñëw ak yéen ci palmarèsam combat yu mu bëre ak li mu def ci biir làmb kon bu ko defee moom dañ koy bàyyi mu nu yoo rek avant ñu dugg ci dirigeant yi su nuyoo ak mbokk yi ñu door a dugg ci dirigeant yi waxtaan ak ñoom kon champion lañ lay bàyyi nga nuyoo gars ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenante bi sant suñu ñaari waajur di leen sant yéen sama gaay waa Tacko TV di bëggee ñi fi nekk ñëpp mhm. di wax man ak yéen benn lan ndax ñoo fi ñu jógee mhm. kon suñu dëkk la ñuy teewal muy Tacko mhm. amuñu loolu suñu dëkk di nuyu waa Tacko gépp ak turu waa Louga bawu ma fenn ak lépp lu wër Louga daal maa ngi leen di bëggee di sama gaay nga gis nii waaye bu waa écrit bi nga xam ne sonn man muy écrit montagne nord ak sama coach sama gaay kon bu ko defee nongo daara dañoo ñëw tey pour ñu xam kan mooy ndongo daara mais laataa ñu xam ndongo daara dañoo bëgg coach yu ñu toogal ñu nekk suñu wet ñu nuyoo présenté wu ñu xam ñoom ñooy ñan ku ci mel ne coach su Mbaye Diarra ñu ngi toog moom da nga koy jox mikoro bi rek mooy mu présenté wu ñu xam kot su Mbaye Diarra moom tey jii ñu seet si élément muy ndongo daara lan la ñu ciy wax. bisimilah waaw asalaamaaleykum waa Tacko TV. Mm-hmm. maa ngi di nuyu mm-hmm. di nuyu waa Louga gépp mm-hmm. di nuyu Mouniang Mara. Mm-hmm. donc Daara waa écurie bi. Mm-hmm. ak ñi siy jàpp ñëpp xam nga mënoo lim ñëpp. ndeysaan waaw man maa ngi dëkk ba ancien route. ndeysaan mais ndongo dañoo yàgg du fii moo ñu boole. ndax dama nekkoon nag moom si écurie Boy Jolof. Mm-hmm. yàlla dogal Boy Jolof tukki. yàlla dogal Boy Jolof tukki. léegi man ma toog jàpp suma njàmbur. après muñ ñag moo ne ma. dañoo former écurie. dañoo bëgg nga ñëw jàpp si. xam nga léegi man tamit. ma xam ne ndongo booy ne neex naa nekkal daal. Mhm. xam nga. Mhm. ndongo booy bu neex a nekkal la neex naa entraîné tamit. Mhm. te Olof Ndiaye dafa am lu wax def ni sport du fen. xam nga. sport du fen. dëgg la ni ku nekk li nga liggéey rek moom ngay jariñu dëgg la parce que ku seetaan combat bi passé yàggul nii. bu fekkoon ne liggéey lu baax. kon du génn si combat bi. mais ñun ñi koy entraîné ñun. xam nañ ne combat bi bu doon duré une temps. ki muy bëril mënu koo vider. dëgg benn entraînement yi bokkul. Mhm. ñun fii 45 minutes la ñuy entraîné par jour. Mhm. dañuy def 25 minutes physique. Mhm. def 20 minutes contact. léeg-léeg timis fii la fekk. parce ñoom ñoo bëgg ñun bëgguñu. dëgg ñoom ñoo bëgg te nit ki bëggee benn affaire. dénk la boppam. kon yow da nga war a def loo xam ne bu ëllëgee. fu mu a dem bu dikkee ay mbokkam du ñu rus. li tax nag man may gën a rey sama bopp si ndongo daara dafa am ay kàddu yu may dégg si moom yoo xam ni. nga dëkk nit ba pare di wax si moom yenn wax yi loolu gën maa poussé man ma gën ko yokk jom mhm. di ko teg lu métti nag te mosumaa wax ne nii la mhm. mais bu duggee si làmb ji mhm. keroog bi mu bëri ki bu mu simikoo ku ko xool xam nga ni kii fowul macha allah man leen rek laa koy ñaanal mu góorgóorlu gën a téye boppam gën a fonk ay entraînement fonk ñi mu nekkal parce nit li ko yàqal mooy wor te ba ma ko xamee ba léegi nekk ñu woon si équipe bi xamee ma ko war benn discipline bi bëgg lim nekkee. dëgg la làmb nag moog football a yam. dëgg la carrière am gudd na guddul. dëgg la bi nga tollee sa digg doole. Mhm. waneel jom ak mhm. ngor. Mhm. nga def li ngay def benn yoon mu jeex. nga am palmarès bu rafet. moom nag catuwuma ko. mais ni mu départ nii. yal na ko yàlla jàppale après dañuy comprendre kan mooy ndongo daara. ndeysaan waaw lu si kanamee tuuti lañ koy xam. a jërëjëf coach Mbaye Diarra moom mooy coach ki xamante ne si moom mooy ndongo daara gis nañ li wax ci moom kon ndongo daara ba léegi champion la boo xamante ne si kenn du ko naatable kon bu ko joxee dañuy dañuy joxal micro bi rek ki nga xamante ne si mooy Modou Niang mu jox micro bi Modou Niang moom it bokk na ci nga xamante ne si ci staff bi la moom Modou Niang moom it ñu jox ko mu sànni ci ay kàddoom laataa ñuy dugg ci waxtaan bi kon nañ koy déglu Modou mu wax ak gars yi. sama gars yi maa ngi ziar ñëpp. Mhm. di bëggee ñëpp. Mhm. rawatina waa Montagne Nord. Mhm. di nuyu waa Tako TV. den wax kontaan nañ ci lii. ndax lii nekkoon na lu ñu yàgg bëgg. Mm-hmm. mais wan ngeen ñu tey ji pare ngeen pour jàppale ñu. ndeysaan moo tax maa ngi leen di nuyu di leen sant. ndeysaan di leen gëm di leen ñaanal seen télé bi nekk fa. Mm-hmm. moromi télé mi yëpp dàgg. mu àgg fa kat kàttanu yàlla. ndeysaan waaw di leen wax nag ni euh, ndonga. Mm-hmm. nekk na nit koo xam ne nii. moom dépassé nañu sax ay affaire mbër ak yooyu. ay affaire yu kët. ndeysaan ndonga sama rakk la. mais nekk na ku neex a nekkal. rawatina. moom ci wàll yëpp loo ko doo ko teg dara ba mu ni la man lii wala laa. Mm-hmm. waaw moom liggéey la gëm. Mm-hmm. heure boo ñëwee fi fi nga koy fekk. Mm-hmm. loo teel a a ñëw boo ñëwee fekk ko fi. mu nekk ci ay entraînement am. xam nga. fonk boppam. mais nag waaye équipe lépp it nag waaye équipe bi la quoi. ndax gars yi ñoo ko dooleel. dëgg la ndax fu mu gëstoo gis leen. tant que bu mu siqi gars yi teg ba ca des. dëgg la kon dañuy sant tamit waa équipe bi yëpp. dëgg la di wax tamit waa staff bi gis nga gars yi. kii mën naa ne gisoo fi supporter staff bi nga fi gis ne ñi ñëpp ci équipe bi lañ bokk. dëgg kon dañuy sant ñëpp rek. Hmm. di gërëm ñëpp waaw. ndeysaan waa dëgg la Modou Niang ñu ngi lay jaajëfal kon bu ko ba léegi rek dañuy jox jantal Mara jantal Mara moom <laughs> jantal Mara bu bu Louga la bu Louga <laughs> dañ koy jox rek moom it <laughs> bi la bokk moom nee moom mooy monument bi kon monument dañ lay bàyyi rek yow nga sànni ci say kàddu. aouzu billahi mina seytaani rajim. nuyu nañ leen siyaar leen. Mm-hmm. di leen jox seen wàccuwaay euh, di siyaar staffu montagne nord bi yëpp. Mm-hmm. di siyaar mbër yi. Mm-hmm. di siyaar yéen ñi e, déplacé ñëw fii. seetaan si entraînement montagne nord. ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar. di leen wax ni ñëw ngeen fu ngeen war a ñëw. fekk si fi ku mat fekk si. muy ndongo daara ndax nekk na koo xam ne xale la. Mhm. mais xale bu loxoom set la. ndeysaan xale nag bu loxoom setee mën naa bokk ak ku li nga xam ne moom la opté muy mbër. Mhm. doo ko séen muy dem nga ni ana mbër. ndeysaan bu doxee rek nga xam ne ki mbër la. ah waaw loolu de leer na. kii mooy neexa faral dimanche. eh déggal ma lool yow. naa ko kii mooy neex a faral dimanche. neex a faral dimanche waaw. <laughs> ndeysaan. naa ko kii mooy neex a faral loolu neex naa dégg neex a faral dimanche. king futur roi des arènes mu ngi nii toog. waaw kon bu ngeen ñëwee fii seet si ñu dañ ciy kontaan dañuy rafetlu lii bu baax a baax a baax. di mhm. lu staff bi yëpp. Mhm. ñi nga gis ñi ñëpp duñu ay supporter ñi ñëpp ci staff bi lañ bokk. dëgg la wane nañ kon waa Montagne Nord bëgg nañ ki ñu yor. dëgg la xam nañoot li ñu yor. dëgg la Louga gépp fi ne nii Montagne Nord la ñuy bégee. dëgg la ndax nekk jeune. dëgg ba pare gëm sa bopp. dëgg la mi ngi nii toog muy ndongo daara. ndeysaan xale bi xew. ah kooku mooy ndongo daara. Ah, waaw baax na kon noonu la ko gisee waaw jantal maara tagg na mbërëm. mais nag ñun nag wax dëgg fa la <laughs> duñ ko dégg duñ doon benn noppu faa ñu waxtaan ak mbër mi jéem a xool mbër mi mais moom daal tàgg na mbërëm macha allah kon bu ko defee ndongo daara gis nga sa waa staff lu ñu wax gars yi seede nañ ci yow ay kàddu yu rafet wax dëgg fa la mais na ñu xam ne man ak yow du romb du du yomb ci luy baax la amul ruq buy sedd foo yaakaarul ne dinaa fa dugg rek <laughs> dinaa fa dugg mbar ak yow. waaw waaw waaw amul problème gars yi ñoom ñoo baax rek. waaye saaf bi ñoom ñoo baax rek. ndeysaan ñoom ñoom ñooy sonn ci ndonga daar ndonga daar nekk na benn simple boo xam si benn simple ndonga daar la rek mais gisoo dañuy sonn ci daay seen itti yëpp ñëw. ndeysaan am heure war nañ fekk seen liggéey ñu dagg seen itti yëpp ñëw pour ndonga daara. dëgg la kon ñooñu amuñu seen fay. dëgg la moo tax lu ñuy nekk rek dañ ci dem ba jeex. dëgg la suñu xoolee ñu topp suñu gannaaw. Mhm. te xam naa ne affaire daf ñoo bett sax mais suñu bettu woon yaakaar naa ne suba tey suñu dayoon fi yaakaar naa fi nit du fi xaj mais comme bett bi moo tax lii lépp nga fekk fu ñuy mhm. ñu bëri tey euh, si ngoon gi lañ ko yëg si la ñu bàyyi seen it yëpp ñëw kon ndax amuñu seen fay dina wax ndongo daaraa ngi nii seen ndongo daara la fu ñu teg rek foofu la foofu la waaw noonu la di wax ni ndongo daaraa ngi seen ndongo daara la fu ngeen teg rek foofu la ba léegi ñun ak ndongo daara ci biir waxtaan bi kon bu defee mbokk yi dañuy dugg ci biir palmarèsu ndongo daara ñu lemal leen ndongo daara ñi nga xamante ne si ñoom la jot a bëreel ci biir Louga ndongo daara bu écurie Montagne Nord ndongo daara mi ngi njëkk a bëree ki nga xamante ne si moom mooy Baboy mi ngi ko bëree ak premier combat am deuxième combat am Ndongo Daara mi ngi bëree ak Ama Balde troisième combat am Ndongo Daara mi ngi bëree ak Cœur de Lion quatrième combat am Ndongo Ndongo Daara mi ngi bëree ak ki nga xamante ne sii mooy Boy Naar sixième combat am cinquième combat am la bëree ak Boy Naar sixième combat am mi ngi bëree ak Elton bu Balla Gaye septième combat am mi ngi bëree ak Remsa huitième combat am Ndongo Daara si la bëree ak ki nga xamante ne sii moom mooy guy gi guy gi bu Njaañ la bëreel. neuvième combat mi ngi bëreeg ak séeréer booy séeréer bu ndar booy séeréer bu ndar la bëreel bu Saint-Louis neuvième dixième combat am nag moom si la doonee fiiti roi des arènes kon ndongo daara loolu mooy palmarèsu ndongo daara macha allah parce que futur roi des arènes yombul te nongo daara fi mu jëlee roi des arènes bi ki mu daan ba muy ba ba koy jël ki ko jëlee woon moom ndongo daara ñoo bok écurie kon loolu maanaam victoire bu rëy la ndam lu rëy la kon ndongo daara avant tout d'abord loolu dañ la ciy féliciter jël si jaajëf di wax roi des arènes bi mu yàgg ci yow. amiin li nga ciy xaar sa kanam mu fekk la ci. allahumma ba nga ñu koy indi dakaar di ko bëree. amiin nee nag loolu nag bu mu jàpp ne dina tax mu yomb. non munul yomb damay daal di defarwaat. <laughs> munul yomb daal di jàkkaarloog ndongo daara. <laughs> léegi bu ko defee ndongo daara ñun maanaam wax nañ sa palmarès. gis nañ ñi nga bëreel. ci làmb wax dëgg fa yàlla macha allah bëri nga ay mbër tey ñu ñëw jóge Dakar ñëw Louga jël si nongo daara écurie Montagne Nord. tey bu ñu nee ndongo daara kan mooy ndongo daara Louga. waaw avant tout di kontaan ci yéen rek. Mm-hmm. déplacement bi ngeen def. Mm-hmm. ndax amuñu seen fay. Mm-hmm. yaakaar naa dañoo waroon jël suñu moyen jox leen pour ngeen ñëw. dëgg la mais a bàyyi seen yite yëpp. jël seen moyen bopp ñëw seet ñu fii. dëgg la am am yëg-yëg ci ñun. kon ñu leen di fi seen seen télé bii ngeen doon yi. fi ngeen bëgg àgg yàlla na fa àgg ak jàmm salaam mu rafet seen njortu. di wax nag mooy ndongo daara mooy benn simple la rek bu nekk ci Louga. nekk ab taalibe. gars yi jiital ko mu topp seen gannaaw. fu nekk foofu la rek li ma mënu ma mënu ci wax daal muy ndongo daaraal benn mbër la bu nekk Louga rek di bëgg ko jàppale nag mhm. pour mu génn def ko ay moromam dem Dakar Ndiaye bëre waaw kooku mooy ndongo daara waaw comme ni mu ko waxee kooku ko jàppale mu génn dem Dakar bëre ji mais ndongo daara est-ce que mi ngi entraînement comme entraînement nu mu waree ni di entraîné waaw ndongo daara moom sama gars yi sax mën nañ ma seede mhm. li mbër def lépp maa ngi koy def ci kàttanu suñu borom parce que doolay mbër entraînement ndax su ma yaakaar naa ba duggee ci làmb yàggul yaakaar yaakaar naa mhm. na sama morom ma jiitu woon mhm. si fi laa leen fekk ci làmb ji. dëgg la mais fi ma agsi fii agsi ak yàlla ñoo borom ak mhm. daar li mu war a yëpp xëy di entraîné di gontu mm-hmm. entraîné mm-hmm. nekk ci li mu war a nekk su lamb amee damay dem bëree ji fu ma dégg mbapat damay dem bëree ji borom nag mooy maye mm-hmm. mais dañuy tàll loxoy suñu borom di sabablu moo fi nekk mais ci war a nekk moom ñoo ci ndax si ñu fekk nii waaw dëgg ba léegi ci Tako TV la lumière du cœur leeru xol ñu nag Ndongo Daara kon Ndongo Daara bu ñu gisee Daara ba tey jii mu bëre futur roi des arènes yaa may dégg ah. tey Ndongo Daara mu des Louga di bëre kon ndongo daara est-ce que écurie bi mu ne écurie bi maanaam bu dee champion la écurie bi nu mu toll biir Louga ba ndongo daara toll foofu am 10 combats. non écurie bi ci Louga moom yaakaar naa écurie gënu ko fee mag écurie wax lamb Louga. Hmm. montagne Nioro mooy base bi. mooy base bi mooy hmm. ku jug kuy tëgg promoteur buy tëgg sax. Hmm. bala moo tëgg day jubal si montagne Nioro parce que seen i amul ñaar daan am ñetti combats. kon xamoon na kooku moo yor lamb Louga. waaw mais ñun daal ndongo daara muy li nga xam ci muy ndongo daara hmm. muy ndongo daara yàllaa ko dogal mu ñu toll fi bëre ci Louga mais hmm. yaakaar naa ne heure bi dañu fekk ñu dem di génn feneen di bëre hmm. ndax daa wax jéeg si di jaxte ndar moom booy séeréer bi ma bëreel foofu te ñu ngi parewaat pour delluwaat foofu ñu ngi ci tànk yooyu mais ñu liñ gën a li ñu gën a ñor mooy ku ñu jàppale ñu dugg Ndakaaru Njaay ndax suñuy moroom a fa nekk te ñu dugg nañ fa mbapat xam nañ la fa nekk xam nañ suñuy moroom mais la Ndakaaru gars da dañoo saf sàpp. moo Ndaka mbër yi dañoo wex xatt lu leer laa lay wax. xam naa la xam ne de. <laughs> loolu laa xam nag moo tax bëgg faa dugg boo déggee dugg tax nga yaa xam te dugg Ndakaaru. Dakar dañuy ñëw fii ñu. sama de moo Dakar dañuy ñëw fii ñu. wala yow kanam gii ma gis dafa lewet. dama ne la sa kanam gii gisuma ci benn sigaar. waaw daa ma lay wax sa combat tamit noo nga daara taxawal <laughs> noo gis combat yi jaaxal na parce que sa combat sa kanam gii gisuma fi benn sigaar. non dafa leer naññi encaissé naa coup ne. mbëru Louga daa mel ni ñu ne coup naa ko nag. ah gisuma ko sa kanam de. mais dara. mbëru Ndakaaru nañuy dóore de. xam nga lamb moom lamb la rek dama ne lamb la dànkalee ba jox la ko. lamb lamb la ah. la yor ma yor loxo. yaakaar naa contre moom fu mu daal mu saf. Isa xam nga lu garaaw laa lay wax. Mhm. Modou Mbaye sama waa ji seetaan mu pekkaay mbay mu mbaaya. waaw Modou seetaan sama waa ji. maa ngi toog ak ndongo daara da ciy jot. Mhm. xamal ne yow bu ñu jógee fii di nga bëre si Dakar incha allah. loolu laa bëgg moom a teel a daara li ma lay nga xam ko mooy yaa ngi wax damaa bëree bëgg a bëree Dakar damaa a bëree Dakar. daam lu mu lay wax. déglu ma rek ma ñëw waaw Dakar xam naa leen bu baax dañoo weex xat. oh dama ne la saf dama ne la. bëgg naa nag nga bëri si Dakar loolu la lay ñaanal te bu ñu jógee fi incha dina am mais daara boo ñëwee Dakar di nga xam ne Dakar du Louga de. dama ne la ñaari <laughs> mbëru Dakar. waaw ñëw nañ fii boole maa ngi ñëw wan leen du ma seen morom. kan ak kan li ma. Elton Junior bu équipe Balla Gaye. waaw ba mu ñëwee fi dama ko wan du ma morom ma. waaw RFI 2 RFI 2 ñëwee fi ma ko mais mais loxo yi bokkuñu de. waa la am na loxo yoo xam ne. lu koy may entraîné ah. entraîné moo koy may mais des fois ñu dóor la boo xamante ni si entraînement yi fële lay. ragaluma loolu. tànk yi day ruux. ragaluma loolu. yi nga bëreel seen loxo diisul de. ragaluma loolu ki ma bëreel barki Demba Ndiaye euro équipe Balla Gaye la nekkoon. ah yaa ngi wax rek. fa la nekkoon. ah waaw. parce que man gis naa combat combat nangu daara ak Saba Saba bu yaraax. day neex. combat Ndongo Daara ak Saba bu Yarax gis naa ko. day neex parce que ñaar ci bindu neexoon nañ ci bind. day neex. mais Saba dafa wexaat. loolu laa bëgg man bëgguma xam nga dama bëgguma mbër moo xam da ngay bëri moom daan ko rek ñun ah moo dama bëgg mbër mu saf nga ñëw wan na ko fu ma jógee dafa sori. te lu ga dëkk topp sama gannaaw nga teel ko lu metti wan ko lu metti wan ak du ma moromam. non parce que parce dafa doon combat boo xamante ne si dafa ma neex parce que dama ñëw gis bind na wax naa ko avant ñuy commencé ma gis bi na ma ne ko yow sa combat yi day neex parce que am na ay Mor Kankan ñoo xamante ni si ay adversaire u Ndongo Daara lañ parce que moom bu ñëwee Dakar war na mën a bëri spécial moom Ndongo Daara jëmmam may na ko taayam may na ko mais ay Ndakaaru. <laughs> loolu laa bëgg Ndakaaru njarndeem moo fa ne de. dama borom Touba am lu ma wax. sama gars yi mu fa gis. dama ne la waa Dakar bala ñoo xam dëgg-dëgg ñu def tàkkusaan wàcc si fa. isa xam ne isa xam ne dama daara boobaa dama ñu fa gëj. isa xam ne Ndakaaru Ndakaaru dañuy dóor mbër ba muy daw di arrêt di génn fii sax dañuy dóor mbër ba muy arrière di génn. non yow sa kanam gi goo mën a dóor nañ la waaye ndongo daara nag nag. goo mën a dóor dama ne la. Ndakaaru Njaay. waaw bis mu fa wàccee tàkkusaan. waaw dóor ñu fa gëj. ah barke Seydina Mohamed bis bu ñu fa wàccee. ah dóor ñu fa gëj. mais ndongo daara mooy tëdd mooy tëdd fii lu écurie Ndakaaru. dama lay wax rek. dëggal gaay gaay si ginnaaw lay yem dama am lu ma lay wax si ginnaaw yem. dama ne la bis bu ñu fa wàccee. waaw ndar ban fa wàccee ba tey ñu ngi ñuy wër Dakar de suñ fa wàcc see dana xam ne wàcc nañ fa. ah loolu man maa la ko wax. gaa yi ngi lay tàccu rek ngay wax muy. neex non dama lay wax rek non li xam. mais Ndongo Daara mooy écurie mooy mooy bi. doo tedd fil mooy fil bi. Bolo mooy tedd la waa ji jëlee si moom kii bi waaw waaw mooy sunu mag mooy sunu lépp mooy tedd fil bi. ndeysaan si ginnaawam la ñuy topp. ndeysaan noonu la fa demee. waaw ci ginnaawam la ñuy topp noonu la fa demee mais Ndongo Daara yéen naa ko mbër boo xamante ne si day ñëw Dakar bëri si foofu que tamit li muy wax tamit dëgg la quoi parce que mbër la nekk fii nii ñun jot nañ ay information si moom muy góorgóorlu wax dëgg fa yàlla waa Dakar ku ci mel ne Dieye Sène sama waa ji ñoo bokk géejawaay dama bëgg nga jàppale ndongo daara mu ñëw bëri si ndakaaru bu ñëwee ndakaaru bëreeg champion yi champion yi ñamal ko parce que ndongo daara kanamam gii ñamul ay coup faa mu ñëw Dakar dajeeg booy saf sàpp booy ñam ko seen loxo yooyu noonu waa Louga xam ne <laughs> Louga du dakaar faa bu ñëw foofu kon jéey loolu dama koy teg sa loxo di ko teg ci loxo du mbay ñu jàppale ndongo daara mu ñëw Dakar bëri si fa xam nga mais nag ndongo daara bu yàlla dogalee ñu ñëw fii tey jël si la grâce à Xaddam Fall moom it dañ koy jaajëfal parce que moom moo ci dox ay jéego ba ñëw fii jël si la kon Xaddam tey jii mu nekk nit koo xamante ni si mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi nekk géejawaay yor fa loo xamante ni si mi ngi dimbali yi ñu nekk fa di daan seen doole moom boo amoon loo koy wax tey mi ngi lay seenaan nga jàkkaarloog moom loo koy wax. waa grand xadam mhm. ñu ngi koy bëggee mhm. di jox wàcc waayam di nga xam kontaan mhm. soo jàppee da ngaa war a jàpp soo jàppul da ngaa war ndax yaay ñun mais di ngi def ne rafet nañ ci trop kontaan xam ne am ñu daal mooy xamu nu ñu def ba fay la ko mais ñu ngi def pour le tour dina la ko fay ndax li nga def dañoo kontaan cee kontaan trop lu toll ne équipe bu ni nga déplacé leen fii ba Ndakaaru ja indi leen Louga amuñu fay googu yëg-yëg daal ñoo ngi wax daal li nga bëgg ñoo ko xam yàlla nag suñu grand bu kur nga fi yàlla bàyyi ba ci kanam. ak kon mbokk mu mel ne li amoon ci temps mi xëcc du jeex parce que nekkul ci ndongo daara rek la ñu a yem parce que dañoo war a am lu jëli. mais ñu wax léegi nañu am ñaari champion yoo xamante si fii ñoom bëgg nañ ci sànni seen kàddu ku ci mel ne Siteu xaw ma ak kan. xaar ma wala sama gaay waaw oh, sama gaay oh. lu gën a gaawee rek bu baax mais nag ndongo daara moom moom mi ngi wax waxtaan bi neex na mais jàpp na ne <laughs> ndakaaru moom yomb na bëgg naa mu bëree ji ndakaaru ba mos ndakaaru ak mbëri ndakaaru yi. waaw dama am lu mu lay wax ay ndonga daan li ma gis boo ko gisoon. di bëgg sama gars yi. <laughs> waaw grand pape mais. grand ñoom yàgg na. temps boole woon maa ngi maa ngi ñoom dëkk ba temps booy ba tey. amuñu fayam. gis nañu yëg-yëg yëpp suñu ci def. boobu amuñu fayam ak sama gars yi. waa Louga gi yëpp daay wax ak Ousmane Montagne Nord. ndeysaan ni ñuy sonnee ci man. li ma deseel la. dañ koy wax sax loolu rek laa leen deseel te loolu rek laay ñaan naam tàkkusaan bu ñu Dakaaru Njaay ma wan waa na hmm. loolu laa bëgg ñu na jàpp xam ne doom mu ngi fii te bëgg na ñëw Dakaaru Njaay wan ne leen doomu njàmbur am na fi Gaston Père Gaston encore noonu bëgg ñu wax ñu loolu am na ay doom nekk fii yu gëm seen bopp mbër Dakar Ndiaye mënuñu ñu ah baax na li ñuy li ñuy li ñuy gàlloo duñ ko tegoo maa ngi ñoom nekk nan dañoo bokk ak ñoom di entraîné nekk ak ñoom. li may tegoo mënuñu ko mënuñu ko tegoo xam naa leen bu baax. di bëgg sama gars yi nag waa Tëngéej. Mhm. am na seen fay ku mel ne usine doole. saan rab seex. gaa yooyu yëpp seen fay di leen bëggee. waaw di leen wax ne après retour de Ndongo Daara mu ngi ñëwaat léegi fan yii du yàgg. jeex na kon ndongo daara ñu koy kontaanee. waaw la dugalee ay kàddu tàggu di la wax xaar sama booy gaaw ñëw ñu dugal leen ñoom it ñu xam ñoom ñooy ñan après ñu jéem a tàggatoo. waaw ñu ngi jéem a delluwaat ci liggéey bi. ay daara mu ngi wax rek mais bu ñëwee Dakar ba gars yi ñamal ko ci kuu yi. yow góolu ma Ndakaaru Ndiaye. dina xam lépp ndongo daara xanaa moo gars yi di wax ci tinel yi yem. bis bu ma wàccee Ndakaaru Ndiaye gars yi na baax na. loolu jërul wax. Ah. nañ ba nañ jëf jëf gi mooy lañ ngeen di gis. baax na wax quoi. ah <laughs> am na mbër moo xam ne du ma ko tudd de waaye bu ma waxee Dakar ba léegi ba mu ñëwee ñam loxo waa Dakar <laughs> sam na sapp ci moom de. Ah, waaw kon bu ko defee ñoom ñaar dañ ñuy jege si rek mu mel ne Siteu la ak champion bi. ak champion kii ak kii. kii mooy Siteu kon. waaw kii mooy Siteu. kee mooy Malick Niang. waaw kii mooy Malick Niang. Malick Niang moom daa nuróog Malick Niang sax. Sandiakhar Sandiakhar. Sandiakhar. bi sarik ne de. waaw mooy ñaar ñoom ñaar dañoo war a bëre la. Sandiakhar lay wuyoo ci làmb ji. le 11 décembre dañoo war a bëre. moom Sandiakhar lay wuyoo ci làmb ji. Sandiakhar lay wuyoo. Sandiakhar. waaw maa moo doon bëre. Sandiakhar mag mi kooku yi xam nga ko. war a jëwee combat ñaar fii mooy Sandiakhar. saa ñëwal nii. borom 125 combats yi mooy maamam. 125 combats mooy maamam. wuy li yow. waaw Sandiakhar toogal yow. toogal yegg suuf. yaa illa 125. kii mooy kii mooy Elton. Elton Junior mu ngi nii Elton Junior. Elton a ngi nii kii mooy Elton waaw kii mooy Bolo sunu grand. sunu mooy Bolo. mooy sunu grand sunu tête de file. waaw Bolo moo ñu ji moo ñu moo ñu ji ci gannaawam. moom moom ci moom lañ jëlee roi bi wala kii. waaw moom la moom la euro jëlee woon ci bi. ndeysaan waaw mooy sunu grand. yàlla nga ma lu ko ëpp. waaw noonu la fa demee. waaw léegi kon ko defee ñun sa ngoon ñoo ñu wétali fii am na ñoo xam sax duñ ay mbër mais dañ ci ñëw di ci jàpp quoi te mbër mu amul ku koy ku koy jàpp rek la am ah dëgg la ku koy jàppale kon ndongo daara mënuñoo lim ñëpp kon gars yi yëpp rek ndongo daara mi ngi leen di kontaanee di leen bëggee di wax ni gis na seen taxawaay kon bu ko defee ñaari samp yooyu ñu wër dañ ciy sànni ay kàddu yu gàtt rek parce que tamit naa la xamal leen ci mbir mi lañ bokk ñoom ñaar ku ci nekk am na combat yaa ngi waaj bis bis boobu Sa Ndiakhar sa tur bi nag sa dig na de ah. Sa Ndiakhar Sa Ndiakhare yow koy bëreel koy bëreel sa tur bi rek bu ko déggee daa war a daaru. ah ñu ngi lay ñu ngi lay déglu sa bis bi nga jëm. ak ah. adversaire bi. waaw maa ngi nuyu gaay yëpp. yëkkatil maa ngi ziar gaay yëpp di nuyu ñëpp. Mm-hmm. sonn nañ si man trop nag. Mm-hmm. billaahi sonn nañ si man trop ma ne xale nag. ndeysaan lamb ji man maa si gën a ne xale. ndeysaan xam nga dama dugg si lamb. maa ngi bëggee ñëpp. yow xale bu 19 ans laa am. 19 ans du ma ko laal. barki borom Tuubaa du laal. 19 ans 19 ans laa waaye waaye Sa Ndiakhar mi yéen 19 ans yéen gars yi. Sa Ndiakhar d'accord ngeen ci li mu wax. non na na jugement ma ko laal. non booy la non 19 ans laa am. 19 ans waaw. man na nangu lu ma yi boo ñu sóoraale non du ma ne sax duggaguma waaw instant maa ngi si bunt bi maa ngi ñëw yëkkatil micro bi maa ngi bëggee ñëpp nag waaw nañ ma sóoraal sa si kaw laa jëm bii mooy sa premier combat am naa am daaw daaw bëri naa daaw bëri nga noo def waaw damaa niil da ngaa kon bii yàlla ci yàlla may na acca tàggatool ñu ñu jàll ci maa ngi bëggee ñëpp nag waaw waaye kii bi sonn naan si man trop sûrement kos ndeysaan maa ngi gërëm suñu waa dëkk dëgg la waa njaxar dëgg la maa ngi leen bëggee ndeysaan di bëggee waa njàng dëgg la di ziar waa montagne nord gépp maa ngi mm. bëggee ñëpp ndeysaan uma seen fay dëgg la loolu laa amoon kon kooku mooy Sa Ndiakhar bis bu mu jëm yàlla ko ci yàlla may ndam man lay jël turam bi su kan ki mooy Pape Bolo moom mi ngi bandi bandul rek Bolo mi ah ana sam Pape Mouniang ay bandi bandul rek toogal nii barke moo seer billaay yéen a ngi ñam yi ñam yi leen yóbboo Dakar ba ngeen ñam foofu di ngeen réglé Dakar moom ñam nan fa ñamati fa man mii di wax yow bëri naa fa six combat yow yaay Bolo Bolo ngi nii lamp yow da nga am combat non aw ma combat mais ah, booy amee combat am naa combat waaw waaw man lañ ko jël waaw may nuyu ñëpp rek mm. di kontaan ci équipe bi bu baax di wax it euh, mm. yal nañu yàlla musal ci saytaane amiin amiin waaw ten gën a ànd suudewu rek ñun mm. bokkee ndey bokk bàyyi ni yàlla suñu borom kàttanal bu baax amiin amiin surtout ak booy yi am komba yëpp yàlla may leen ndam amiin mais bala ñoo egg foofu dañuy gërëm suñu grand yi ne fii. ñoom Bada. ñoom muñ nang sam papa muñ nang papa Bantamba. ak papa euh, Serigne Mbaye. ñu <laughs> di ay pa muñ nang waa ay ñoom gars yi ne fii yëpp. booy bu ñaaw bële <laughs> ñoom ñëpp ñu leen gërëm quoi wax dëgg yàlla dañuy sonn ci écrit bi wallaahi man mii leen may fekk place bu ñëwal ñëwal ñëwal te ku la bëgg rek moom moo la sonal man xam naa ci dara gaa am ñu seen fay looy ñoom ñëpp ñu leen nuyu quoi di wax lambi lu nan geesu sa ndax ñun li ñuy def def nan ko pare bëri nañ ñuy bëre tey dañuy fortaatu nii rek mais ñoom ñoo nekk ci digg bi dëgg la dañ leen di buux wax leen ñu jàppale leen ñu dem Dakar di bëri ji di ñëw parce que bëgguñu ñun carrière bi am ñoom ñu am ko dëgg la di toj di toj di toj sa toj yëpp ci Louga lay yem ñu leen génnee ñu dem Dakar booy ku leen gis xam ni ñu ngi góorgóorlu bu baax te làmbi Louga dañoo war a góorgóorlu pour mu jëm si kanam di wax ni kontaan nañ ci gars yéen it kontaan nañ si yéen parce que ngeen jóge fi ngeen jóge ñëw ndax benn simple écrit bu ndaw bi loolu rëy na yàlla affaire yi a kanam mu lay kontaanee moom sax daa xaw a nuróog rëg rëg. waaw daal nuróog rëg rëg de. rëg bu Louga. waaw ayca champion yow waaw tamit da am combat. waaw ñu ngi si ñu ngi bëggee. Ah. di kontaan si di xam nga di gis seen déplacement di si kontaan bu baax ndax Dakar la avant tout xam di ziar suñu bi ñu nekkal di ziar suñu kos mu ñang xam nga mm, mm. staff bi yëpp bu ñu limee dañuy juum ziar ñëpp di bëgg gars yi teew bi yëpp dëgg la waaw di wax comme dab rek dégguñu waxtaanu mais waaw suñu objectif moom mooy ñu dem Dakar bëri Ah, mais avant Dakar am na ci loo jub. waaw man moom waa jëng naa si bis. waaw waxal ci loolu wala ngaa ragal adversaire bi. non. dëgg si de si de si de du ragal wuy ma wuy si de du ragal barki bis bi bis la comme yenn bis rek. te yaakaar naa ne eh, bis yi ñu jugee da ciy eh, def comme dab jaar. waaw wuy ma wuy ma prix sifflé nañ Siteu ak adversaire am. waaw dañuy dañuy bëre. ma dox si kawam. ma dox si kawam. gauche def li muy def mu jeex. ay waay looloo yomb. barke Alxuraan. tàggatool ñu dem ci ñeneen. waaw ñun moo xam ne ñu ngi ko di dem ci bis bi xam nga. di waajal bu baax. ndax gars yi ñu ngi teg lu métti. dëgg la bilaay dañuy dañuy entraîné matin et soir. dëgg la chaque jour dañ siy nekk. xam nga di kontaan si gars yi. ñu ngi ñu ngi jàpp si combat bi. mais a def seen loxo. xam nga si xam nga nañ ko jox cër bis comme bis yeneen bis yi. ndeysaan waaw borom yàlla mi may ndam mu may nañ lépp état day mootale léegi. amiin jërëjëf macha allah. waaw kon Siteu bu Louga moom it gis ngeen ko dafa am combat jublu ci bis ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ci ndam kon gars yi déglu nañ leen. mooy sama ménagère quoi. waaw mooy sama ménagère. dama bëgg sànni mu sànni tuuti parole xam dañuy sonn suñu mhm. mooy suñu ménagère yi waaw sama gars yi leen nuyu yéen ñëpp. Mhm. nuyu équipe bi Dakar di leen sant di leen gërëm. dëgg la dama guddee ñëw sax. Mhm. ndax dafa am fu ma mais sant naa leen gërëm leen di kontaan si montagne ñor yëpp si kontaan si mbër yi ndax it lii dafa dafa neex la ndax mën naa lii ñu ngi koy soog a am mhm. mais da leen di sant yéen xam fa ngeen bëgg ak yal leen fa yàlla àggale amiin di wax it ni ko champion waxee rek mhm. ñun instant bi dañoo bëgg a génn mhm. ndax bërki démb laa jógee Thiès Sidi Diakhaté jël fa benn combat bi ma ñëw si yoon bi la ma waat mbër boobu daw dama ko dugalaatal xaalisam avance am dëgg kon ñun dañoo opté pour man xam naa kii xam ki nu yor bu baax a baax. Mm-hmm. day daj lépp loolu noonu. yàlla xam ne su suy paree combat da nga koy yërëm. ndeysaan. musuma koo gis day benn ànd ay at dina ànd. Mm-hmm. mu tricher si entraînement. dëgg la muy contact muy weñ du tricher. Mm-hmm. yàlla xam ne ko dama koy yërëm. si combat bii ñu jógee nii nii ñu jógee si combat boo xamante bi bii ñëpp a ko soxla woon dañu yàgg solo mais ñun xamoon na ne ki ñuy dajeel. suñu dajee moom. mais mais mais yow da ngay taxaw foofu tuuti ma laaj question bu gàtt. ndongo daara daa am jabar wala amul jabar. non ndongo daara amul jabar. amul jabar yéen yéen a yor mbooru célibataire naan ay respecté na entraînement am lii na ne eh, eh, te daara. xamoo leen fu mu toll ndongo daara mi mi ngi mi ngi wër ci non non sëñ non non non loolu muy d'accord rek yéen ndongo daara bi wër soxna yi de. yàlla na ma ne nekk da leen di nax rek dem. ma jàllal waaw. kii wér soo wér na ma ne soo defoon micro trottoir si dëkk bi. Ah. yàlla xam na ko dañ naan mbër mi gën a bëgg entraînement. ci moom la jërëjëf lu nekk laa lay waaw non daa war am jabar parce que. non non nan xaar ba si kanam non nan xaar ba si kanam day. non mais garaawul Fall. wuy ma wuy ma ah baax na. Fall day xaar ba si kanam. Ah, non dafa am lu mu bëgg te dañuy xaar ba si kanam. jërëjëf tàggatoo ñu waaw maa ngi sant ñëpp di sant waa équipe bi yëpp. waaw di leen wax nag ñu waajal. Hmm. ndax Sidi ñu ngi wax ndar leen bëgg a dem te hmm. incha allah dinañ fa dem ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw jërëjëf kontaan nañ trop Fall jërëjëf. kon noonu la demee kon ndongo daara gis nañ gaa yëpp rek nañ ñu dimbali rek jégal ñu parce que ndongo daara tamit gaa yëpp mënu ñoo wax kon ndongo daara bu ko defee da ngay tàggatoo rek ñu daal di ñaanalante ba beneen. waaw di kontaan ci yéen rek. billaahi di xam ne amuñu seen fay di leen ñaanal seen télé bi ngeen yor nii yàlla na dem ba nekk ay télé télé télé. amiin amiin di wër àdduna bi yëpp. ndax lii dafa jafe quoi dafa yombul. Mhm. ngeen jóge ba Dakar xool Dakar Ndiaye fa mu nekk. ngeen bàyyi seen yite yëpp. dëgg la ñëw fii pour kan simple ndongo daara mii. kon mhm. kontaan nañ trop. jàmbaar yàlla yokk ba yëg ko. Mhm. li nga bëgg yaa xam yàlla na suñu borom defal. di kontaan ci Kébé village yëpp yi wër Louga Louga daal li ko wër commune Louga yeeg yëpp di kontaan ci ñoom di leen bëgg dina wax seen mbërë ngi nii mm. encore comme dab ni ngeen ko daan defee rek moom yaa ngi ñëw mm-hmm. doole yaa ngi ñëw yëg-yëg yaa ngi ñëw kon mu ngi war di préparer rek suñu borom dimbali ñu ban dem Dakar Ndiaye am tàkkusaan bu dëgër wane suñu bopp wane ne am na lu fi nekk loolu rek lan soxla di bëggee ñëpp nag di bëggee sama gaay yi bàyyi seen yitte yëpp ñëw taxaw fii am seen fay di leen kontaane di kontaan sama waa Elton mbër mu ñaaw mi sama combat bi dama koy daj coono yi la ci daan son day day sax ma koy fu ma neex laa koy woo day kon nag de kontaan ñu am moo fayam quoi. jërëjëf xam yàlla na dem ba ci kanam ndax dama bëgg ma am combat. dëgg waa Louga booy mbëri dañ ko ragal. ñoom ñëppay bëri kenn ñëwee koo jël. waaw Louga gi kenn ñëwee koo jël kon dama bëgg ma am génn sax dem bëree ji. yaa ma gën a xam. di kontaan ci yéen nag di bëgg ñëpp di wax sama gars yi. bëgg naa leen. Mhm. yéen ñëpp waan waa. Tako TV Tako TV. dëgg la maa ngi leen di bëgg yéen ñëpp li nga xam ne yéen xoolal yokk leen ba yëg ko rek. Mhm. ci kàttan suñu borom dana dem ba yëg foo xam ne rafet seen jor ci kàttan suñu borom kontaan naa ci yéen. waaw jërëjëf kon ndongo daara moom tamit ñu ngi koy kontaanee. di ko bëggal di ko jaajëfal moo gaa yi nga xamante ne si ñoom lañ àndaloon wax dëgg faa la lépp nag lu ñu doon def nag bëgg émission bi neex moo taxoon ñu koy def mais Ndongo Daara ku ko gis dina xam ne Ndongo Daara champion la jàmbaar la mu ngi góorgóorlu te incha allahu rabbi bu ñu jógee ci lii suñu borom dina ko defal mu bëri si dakaar ci kàttanu yàlla ak mbaaxam kon bu ko defee noonu rek la ñuy dugalee suñu kàddu ay tàggutoo di santaat di gërëm comme xadam mi ñu yabal ba ñëw fii tamit moom it jàmbaar la gars yi nañu koy jàppale parce que dafa nekk géejawaay di nab nabi ci affaire bu am solo wax dëgg faal di ci jàppale ay jeunes kon loolu dañ ko ciy ñaanal suñu borom dem ba mu nekk ay télé télé télé ci katon suñu borom di gërëm nag ñu nekk ci ginnaaw ñëw parce que ñun ngeen gis ñuy feeñ mais ay Moro Ndiaye ñi ngi si ginnaaw ñoom Omar DG ñi ngi fi ñoom Adama caméraman yi gars yi ay jàmbaar lañ daal ñoom Yérim safoor bi fu ñu jëm rek dañ koy woo xam naa dina sonn torop mais nag ci liggéey bi la bokk kon bu ko defee dañuy dugal ay kàddu tàggatoo rek daal di sant ngërëm wax dëgg fa la comme ni ñu dugg see woon di wax ni ndongo daara mu ngi nii mbër la bu nekk Louga montagne nord kon nañ ko jàppale mu ñëw bëre si Dakar kon ni ma ko waxee woon sànq Dieye Sène xale baa ngi nii tagg na boppam champion la dugal ko mu bëre si Dakar ñam si coup yi parce que coup yi muy ñam fii dafa sedd. grand Dieye kon daam lu ma lay wax di leen jaajëfal daam lu ma koy wax di kontaane di ko yóbbante. di leen di leen di ko wax ne bis bu ñu duggee Ndakaaru Ndiaye. ak ñu fa gëj ñun waa Louga <laughs> Njàmbur TV su duggee Ndakaaru Ndiaye. jaajëf du gëj